faqiir dafay nangoo dagaan nangul nu lépp lu ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi si mbamba noo ngi deeti faqiir dafay nango dagaan nangul nu lépp ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi noo ngi dagaan ci musawaar ma nekk marwata ak xaqi xamdi mustafa mi yàlla jébal xarnu bi ak aqi mbooleem ay ak aqi seen baay ak aqi seeqi bambam ndax yàlla naatal xarnu bi ak aqi mboolem ay rakam ak aqi seen baay am ak aqi Seexi Bamba am ndax yàlla naatal xarnu bi mboolem muri yëpp a ngi tuub bakkaari ñu juub balu nu bay bay dunu góor sëriñ bi geesul xarnu bi Mbàkke dangay boroomi mboor te sa njaboot taw kiloot ñu def ma pantal pareet ay laputo waa xarnu bi ama di laam waaye muridik ñaama ma ne tawatel te bunu wook i ñay woo xarnu bi di laam bi ñu yëgee am nañu ci ay gaañu gaañu am ñu ci daf ñoo euh, digal ñu wër leen kenn ku ci ne teg ci sa loxo ndàmpaay loo xamante ne ànd naag ay ñaan waaw dañoo wër ne nag ñaan yi sax moo ëpp doole moom waaye jëf ji moom tamit dina leen mën a dimbali ci wàllu paj mi ak yi demee noonu kon euh, buñ ko xoolee xam nga dafa doon ay niveau euh, ndax euh, am na ci ñoo xam ne fañ ne sax mënuñu faa jóg kon ne tamit ginnaaw yàlla may na la nga mën a toog ñu jàkkaarloo tamit kon ak sant yàlla la moo waaye teewul lu ci ne am na lu ca war kon la yoo ko mën a dimbali ci wàllu faj bi ñi nga xam ne tamit yaa yow lañ fi fekk si ngay kilifa doon chef de quartier kon ñu ngi la koy seereel ndax loo gis ci àdduna seereel la cay baax ñu kon defee ngeen koy bëgg sëriñ bu baax na ko def na acte social boo xam ne bi c'est de grande valeur boo xam ne mosuñu koo gis gis nañ ko tey kontaan nañ ci loolu population bi kontaan nañ ci njaay yi blessé bi kontaan nañ ci xam ne liit na leen jàppale ñu ngi koy gërëm baax di ko sant def bu baax waaw amin amin xam naa li may wax moom lu mën a bëri ndax daanaka wax nañ lépp mais euh, ñaan yi moom moo ci ëppoon solo li ci ëppoon solo wax na ko léegi ñaan yi ëppoon solo mais dañuy sant yàlla rek sant yàlla bu baax.